bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim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 ñu ngi ñaan yàlla buur bi tabaraka wa buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla na nga koy ñaan moom buur bi yal nañu ko yàlla nangul fulandil ñu ko incha allah mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot yéen a ngi fàttaliku keroog buñ doon taxawande ki yéen ci waxtaan ba ñuy wéttalante ki yéen ci waxtu bi ñu ngi yemoon ci yan xeetu jur ñoo war a doon tabaski waaye ñu ngi doon waxtaan ak yéen yan waxtu lañ leen di mën a jëfandiku waaye ban bés la bés boobu bu jàllee yan bés la ci toftal may nañ la ba ñetteelu fan ci fukki fan fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett maanaam le dix ci weeru tubuski le onze ci bésu tubuski le douze ci bésu tubuski mooy le dix fukkeelu fan bi ci weeru tubuski keroog bu jant bi fenkee na nga waajala sa bopp dem julli boo jullee ñaari rakka yi boo ñëwee ci nga war a toppatoo sa gàtt bi kon bés boobu diiran bés boobu boo ko amul ci suba si mais nañ la ba keroog jant bi di sox saa yoo ko amee na nga ko rey wala jàppandewut fukki fan bi di bésu tubaski bi bés ba si toftal mooy fukki fan ak benn ci weeru tubuski bi muy les onze ci bésu tubuski bi may nañ la nanga ut xar wala béy wala nag wala gëlëm lu jàppande ci yow nanka rey mu doon tubuski bi léegi am nga tubuski ñetteelu fan bi mooy les douze waaw fukki fan ak ñaar may nañ la bés boobee mu nekk trois jours yu tegaloo premier jour jàppandiwul deuxième jour bu jàppande nankarey deuxième jour bi jàppandiwul mooy le on su wéeru tubaski na nga dem xool le douze le douze su wéeru bu jàppandiwul na nga xam ne yàlla atte loolu ci yow at moomu naraloo tubaski fa la ñu yem ak yéen incha allahu tabaraka wa taala mbokk yi suñu diine islaam bi diine bu noobul la diine bu civilisé la du diine xalaat du diiney xel diine texte la texte bi nag ñu koy jëlee ci balluwaay ci alquran wala ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari source yooyu kepp rekk kot lañu ñu war a référé li nga xamante ne mooy suñu doxalinu islaam bi ba tax na tey ñu andil leen xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa fam ñuy baaxee nañoo képp koo xamante ne nar ngaa reyndi xar nar nga reyndi gàtt dafa am lañ la sant loolu ñu la sant nag loolu lañ leen bëgg a bi iznillahi subhaanahu wa yal na ko yàlla yombalal ñu leeral ko comme na téere bi andi waaye yal nañ ko yàlla yombalal ñu mën kaa jëfe comme ni mu nekkee ci téere bi bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñu baaxee ne ñu képp koo xamante ne teewee nga fenkum weeru tubuski di weeru tubuski ñu di ko tubbi zilxijja ci arab nee na képp ku di aji fekke fenk mu weer woowu weer bi fenk na weer bi feeñ gis nga ko seede nga ko te nga nam rey xar yonent bi nee na nag na nga jàpp li la bëgg a wax si nii nee bul dagg sa kawari na nga téye sa bopp bul wotu ndel bul xuuf bul laal dara la nga xamante ne ci say kawaru bopp lay doon waay bi léegi nee na na nga téye say wex bul dagg say wex lu ci gën tuuti bu ko dagg say bëñ bul jël coupe ongul di dagg say wex sa kawaru yaram moom déedéet ay lii nag njàngale yonent bi la sunna su yonent bi la sallallahu alayhi wa ñëw na ci beneen riwaaya mu ne képp koo xamante ne gis nga weer wi weeru tubuski bi teru na nee na nanga nga sa kawaru yaram lépp loo xamante ne karaw la te mu nekk ci kaw deru yaramu doomu aadama moo xam xef la moo xam mustaas la moo xam sikkim la moo xam kawaru poxtaan la moo xam kawar yuy sax feneen ci yaramu doomu aadama nee na loolu yépp nang ko bañ a laal nang ci bañ a laal dara hadis bi muslim moo ko solo du ñàkk ku laaj ne lu tax yenent bi nee na kenn bu mu wattu kenn bu mu laal kawaru yaramam bu wéeru tubuski bi tero kooku di laaj loolu ñu ngi koy tontu ne yàlla buur bi tabaraka ma doyloo sang bi yàlla buur bi tabaraka wa taala ma doyloo ki mu yónn ci xeet bi ci jaamam yi xam na ne lam ko yónni yërmande dong la fees del ba tax na mu ne ñu wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu lépp li leen bi dikkee jëlleen waxul jëlleen ci fa xusuuhu la wax jël leen ko waaw wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu mu leen tere dañ leen ci loolu nangeen ko bàyyi nekk ci leneen te tamit mu ne wattaqullah lam leen digal def leen ko ngeen ànd ci suur yàlla ragal yàlla ci lam leen digal ngeen def ko comme num ko waxe bu dee matalewuloo ko waaye gémmal góor góorlu nga def si sa kémtal ay kàttan wattaqullaha na nangeen ragal yàlla ci li nga xamante ne daleen kaa tere bu dee mënoo ko sore dañaloo wecc ci loolu mu la tere waaye nang ci deñ ci sa lay kàttan leneen li ci des la tax mënoo ko yàlla mi la bind xam na ko xam nga li nga mën xam nga xam na li nga tële yàlla mi la bind xam na li nga mën ci li la yonent bi tere ak li nga tëli ci lim la diggal waaw boole ko ragal yàlla ci jëf yi mu la ne jëfal boole ko ragal yàlla ci lépp li nga xamante ne dalaka tere noonu la ñuy déggee aaya bi wa ma ataakum rasulu fa xuzuuhu yonent bi moo ñu dikkee moo ñu àndil nee ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida raaytum xilaala dilxijjati wa araada ahadukum an yudxiya falyumsiku an shacrihi wa azfaarihi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida raaytum xilaala zilxijjati bu fekkente ne weeru tubaski teru na wa araada ahadukum an yudxiya te kenn ci yéen namm na rey xar kenn ci yéen namm naa tubaski ci gàtt ba ko yàlla wërsëgal ah yonent bi ne boobaa nag fal yumsik an sha'rihi wa azfaarihi na bañ a laal lépp loo xamante ne karaw la ci moom ak la nga xamante ne way ya nekk ci baaraamu loxoom walla baaraamu tànkam mu bañ a dagg waaye mu bañ lal laal kawaram wa fi riwaayatin am na ci yeneen riwaaya yonent bi nee na falaa yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an bu mu lenn ci karawam waaye lenn ci kawaru deru yaramam bum ci lal dara am na ñoo xamante ne yàlla daleen bindee dañ di nit karaw seeni tànk yi seeni moole yi seeni loxo yi lu ko dalee ci conc bi ñëw ci mbagg bi lu ko dalee ci bi ñëw ci tekku jara bi am na ñoo xamante ne yàlla suñu boroom nu leen bindee dañuy faral di sax karaw ci seen deru yaram yi waaw seeni moole yi seeni tànk yi lu ko dalee ci óom bi seen moole yi ba keroog ngay ñëw ci seen Euh, dejoor léeg-léeg yàlla bind na yoo xamante ne ñoom it seen yaramu kawar noonu lay saxee yonent bi nee na ci beneen riwaaya xataa ñu yàlla bindee nii ñu yàlla bindee noonee nañu bañ a laal dara ci seen kawaru yaram waaw seen kawaru yaram nañ si bañ a laal dara yonent bi nee bu kenn laal kawaru yaramam waaye bu kenn laal langa nga xamante mooy we yay sax ci loxoom bu kenn laal wee yi nga xamante ne day sax ci tànkam yi nga xamante ne mooy baaraamu tànkam lii lu ko waral yonentu mi ñu ko tere ndegem nangu nañoo jëfandikoo lum ñu tere loolu muy suñu jàmm waaye ndegem képp koo xamante ne jël nga tere bi def ko la nga xamante ne mooy jëf lañ la tere conséquence bi boo koy gis yow kese yaa koy subir waaye doy na rek lala yonent bi tere nga di ko jëf bàkkaar boo xamante ne kenn xamut foo koy jooye kon texte bi lam la digal defal lam la tere bàyyil doy na rek kilifa ju mel ni ki yàlla yónni mu tere la nga ne da ngay jëf surtout la nga xamante ne bu fekkee ne suñu diine bi dafa am général wala dafa am commandant wala dafa am leader wala dafa am chef yonent bi mooy chef bi sallallahu alayhi wa hatta suñu koor kaaraange yi nga xamante ne ñoo ñuy wattu yal na yàlla sàmm aar leen kenn si ñoom bu dee dafa salfaañi ndigle be ko chef am digal gis nañ punir yañ koy daan bañ koy daan rawatina ki yàlla tànn ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam saydi walude aadam alayhi salaam képp ku aadama meññ yonent bi moo la gën sallallahu alayhi wa sallam afdalul xalq alayhi afdalu salaatu wa aska taslima moo ñu ne ida aradtum xilaalan aw ida raaytum xilaalan bu fekkente ne weeru zilxijja teru na di zilxijja waaw moo tax mu ne ida raaytum xilaala zilxijja bu fekkente ne weeru zilxijja teru di weeru tabaski wa araada ahadukum te kenn ci yeen namm bëgg na an yudxiya ngir mu tabaski ci gàtt ba ko yàlla wërsëgal ah, kon kooku de fal yumsik an sha'rihi na jàpp na bañ laal na bàyyi boy kawaru yaramam kawaru boppam ak wa yii ak weewam bu mu daggawee ci bëñam bu mu daggawee ak kub ongul moo xam wee yay sax ci loxo yi la moo xam wee yay sax ci tànk yi la fii nag du ñàkk am ko laaj góor la walla jigéen ñu nekk fii yenentu bi daf ne képp koo xamante ne seede nga gis nga weeru tubuski te nga nar tubuski gàtt ba la yàlla wërsëgal kon nanga nga jàpp sa kawar nga bañ kaa wat na nga jàpp say we nga bañ leen laal waaw na leen moytu na leen bàyyi nga bañ leen laal ci beneen riwaaya yonent bi ne kenn bu mu laal kawaru yaramam wi nga xamante ne kawar yi dinañu sax feneen fu dul ci bopp bi wala ci sikkim bi comme niñ ko junjee woon ci ginnaaw am na ñi yàlla bindee seen kawaru loxo day sëq seen kawaru tànk day sëq neena na xattaa ñooñu yàlla bindee anam wi nañu bañ a laal seen kawaru yaram yoowee xadis bi muslim moo ko solo mbokk yi yàlla ñu yàlla may dégg topp yàlla na leen yàlla defal jàmm ak seeni njaboot kon su ko defee incha allah ñu toxu dem ci ñetteelu buntu bi wala ñeenteelu buntu bi nga xamante ne moom lañ leen andil ci waxtaanu fajar fii ci réew mi fm 97 point 5 mbokk yi buntu bu ñu bëgg a toftal ci buntu bi incha allah moo ne bi dadi bés bu mag ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis bu mu baaxee xeet bi mu ne ñu qaala nabiy sallallahu alayhi wa sallam in axaafu ma axaafu alaykum ashirkul asgar arriyaau yaqulu llahu yowma alqiyaamati ida jaza nnaas bi amalihim idhabu ila alladina kuntum tarawna fi dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza sahihul jamia yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi day moytandikuloo jullit bi ngistal ba tax na mu ne ñu yonent bi wax na sallallahu alayhi wa sallam ma ngi leen di moytandikuloo bokkaale bu ndaw waaw ragaluma ci yen bokkaale de waaye dama ragal ci yéen bokkaale ju ndaw bokkaale bu mag nag def naa tuube loolu na seen xol leer na seeni bopp ndax du ñàkk ñu am ñu nga xamante ne dinañ ko jottali ci ñiy fekkee mujjanteelu jamono comme suñu jamono ji yonent bi nee na ragaluma ci yenn bokkaale ju fis bokkaale ju mag ndax fexe naa ba reenu bokkaale ju mag dagg naa ko yaa ngi wiital yàlla waaye am na bokkaale bu ndaw bu sewa sewa sewa bi nga xamante ne ñu bari ci jullit ñi duñ ko bàyyi xel mu ne leen bokkaale su ndaw soosu moy lan bokkaale wu ndaw boobu mooy lan mooy ngistal moo tax mu ne ar riyaa mooy ngistal nga jëf dara pour nit nit ñi gis ko nga jëf dara pour nit ñi dégg ko nga jëf dara pour nit ñi yëg ko te sa jubluwaay bi tamit mooy nañ ko gis nañu gis ne maa def lii nañu gis ne maa wax lii waaw nañ ma wax ne toj nga fi waaw ku fi toj nag ah di nga bëgg dajale bagage yi nga toj mu télé la de waaw nga bugg pour ñu naan la yaa fi yaa fi ne nekkoo fi de nekkoo fi de laata ngay def la tax ñu ne la yaa fi ne lu waxuñu la la tax ñu ne la yaa ne jëf boobu balaa nga ko doon jëf lu tax waxuñu ne la yaa fi ne lu tax ñu xaar ba nga jëf-jëf ba tax ñu ne la yaa fi ne ñu ne la yaa fi ne yow ngay xoggale ko nga ne maa fi ne ne woo fi ngay ndax sa bopp te ñu la koy wax dañ lay nax waaw moo tax yonent bi ne ragaluma ci yéen bokkaale su fés ndax loolu dagg naa ren bi saxatut waaye li ma ragal ci yéen mooy bokkaale su ndaw soo xamante ne di ngeen ko jëf te du ngeen ko yëg te mu doon bokkaale boo xamante ne day màbb seeni jëf te loolu muy ngistal wala déggatal ngistal mooy ar riya déggatal mooy as sum'a waaw ngistal nga def dara pour nit ñi gis la nga def masalan ci waxtu wa ñu dégmal nii kenn ku nekk dina jënd xar takk ko sa buntu kër waaw Ibrahima Dramé mi dem jël xaram takk ko ci buntu këram donte amaguma sax waaye takk ko sa buntu kër su ko defee bu gaay rombe ñu ne waaw haa sa waay de xaw ma xaw nu mu demee de mais waaw loolu mënoon naa ñàkk mënoon nga ko bàyyi fank jënd jur bi ñu andi ko wala mun nga ko andi dugal ko sa néeg bu dul dara sa bët moo baaxul bët bët ci boppam al aynu xaqun wala lisaanu xaqun waaw cat bay bàyyi ko ci bët yonent bi nee na dëgg la de na ngeen ko moytu te daw ko nee cat buy bàyyi ko ci làmmiñ dëgg la na ngeen ko moytu te daw ko waa yow nga diggir fit ni man ragaluloo cat bay bàyyeekoo ci bëtu nit ñi ragaluloo cat bay bàyyeekoo ci làmmiñu nit ñi nga jël sa piliyaan teg ko sa buntu kër ak say tànk xale yi di xiim a ataya ah nga takk sa xar wi ku romb xool ku romb gis amaana am na ku koy gis kooku yéenewu la ko yow yëpp sóoraale wuloo ko ah boo deful ndànk boo naree ki loolu de dina ma bett de ndax cat bi bu ko duggee mooy ñàkk nga ko waaw cat bi buggoy dugg rek ñàkk nga ko wallahi laazim nañ leen ko moytu waaw nañ leen ko moytu jaru ko jaru ko bu ko takk si biti dencal bu bés ba jotee génneel nga jëfandikoo ko comme ni ko islam santé nga daal di waaw topp réglu islam bi rek waaw saraxe si maye si eh, yàgg say njaboot yonent bi nee na ñi nga xamante ni dañuy ngistal ci seeni jëf yaqulu llahu yawma alqiyaama yàlla da leen di wax bés penc ida jaza naas bu yàlla naree fay nit ñi seeni jëf yàlla day wax ñooñu ne moo tax mu ne ida jaziya nas bi amalihim ba yàlla nara fay nit ñi seeni jëf yañ doon jëf ña doon sellal ngir yàlla ñooñu yàlla da leen di fay ndax moo tax ñooñu di jëf waaye ko doon jëf ngir ngistal wala déggatal yàlla da leen di wax ni izhabu dem leen ilal lazina si gaa yi nga xamante ne kuntum tarawna fi dunya ñooñu ngeen doon won seeni jëf ca àddina fanduru nan na ngeen dem ci ñoom xool ba xam hal tajiduuna indahum jaza ba xam di ngeen am ci ñooñu payoor tontu bi mooy ah ñooñu fuñ leen di gise ba ñuy sàkku ci ñoom payoor kon ñu déggee ci ne yàlla jéppi na yàlla day jéppi képp kuy def ngir ngistal ngistal boobu ngay jëf keroog bés penc di maaliki mi diin buuru bés penc bi nga xamante ne mooy fay nit ñi seeni jëf képp ku doon jëf dara moo xam mbiru diine la moo xam mbiru àddina la waaye ba doon jëf lu ko lal mooy lan ngistal yàlla xam na ko ndax yàlla xam le sa biir xol bu dee ngistal moo nekk ci sa biir xol kon ngistal boobu mooy doon sa payoor moo tax yonent bi ne ñooñu la yàlla di wax bés pénc dem leen ci ñi nga xamante ne ñooñu ngeen doon won seeni jëf ñooñu ngeen bëgg ngir ñu gis seeni jëf ñooñu ngeen bëgg ngir ñu dégg seeni jëf ñooñu ñu leen doon wax ci àddina toj nga fi yaafi ne fii mokk na comme slogan yu xaw kenn xamul lu ñuy wax wallahi alazim kenn xamul lu ñuy wax slogan yooyu naka la ko nit di mu ne wax nit toj nga fekk yaa fi nekk nga di ko jay moom it muy xoggaleku nga di ko jay moom it muy yëkkati mbagam di puugariw nga ne ko bu duwutoon yow la ñaaw bu duwutoon moom subhanallah loolu kenn mënu ko wax nit kenn waru ko wax nit wallahi ngay jay nit na ñëw jay ganaar mu dem songu gaynde mu nappaaje ko rek fala yem waaw lu ko ko yóbbee ginaar ñi di ko jay mu ne mat naa songu gaynde walla walla walla walla walla ñay mais ñaari rab yi ak ku munti doon ñooñu ñoo ëpp ginaar doole donc nit da nga xam sa bopp waaw ah. su ko defee ñooñu la yàlla di wax yowmal qiyaam idhabu dem leen ila si ñi nga xamante ne kuntum naa fi dunia ñooñu ngeen doon won si ni jëf ñooñu ngeen bëgg ñu xool seeni jëf ñooñu ngeen bëgg ñu dégg seeni jëf jëm leen si ñooñu fanduru ngeen xool ba xam hal tajiduuna ndaxum jazaa ba xam di ngeen fekk ci ñoom la tax ñu di leen fay ñooñu foo leen di gisee bés pinc boo leen gisee tamit ñooñu seen mbiru bopp doy na leen problème taaluñu kenn yawma laa tamliku li nafsin nafsin li nafsin shay'an yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bés penc de di bés bi nga xamante ne kenn talul kenn ci lenn kenn talul kenn ci dara kenn talul kenn ci tus képp koo gis mu ngi tal boppam yow nga nekk foofu di wër nit parce que dañ la wax ne àddina lépp la nga doon def da ko doon def ngir ñu gis ko ngir ñu xool ko kon loolu la ñu bi di moytandikuloo sallallahu alayhi booy def defan ngir yàlla sa yéene na sell ngir yàlla waay waay waay nañu jënd xar bu tolloog suñu doole dem bi xaalis ñëw jënd xar tubuski bi weesu ngay nekko nekkuma fi ngay daw appel ya ngay woo ngir fayeeku la jaru ko laa yukallifu llahu nafsan illa yàlla tegul benn bakken lu dut la mu xejoo waaw yàlla nee na tegul benn bakken lu dut lu mu xejoo ak lu mu antan nga ne déedéet yàlla man damay dem jël lu gën a diis lu nga xamante ni mënuma ko antan ma yéene ko sa loos bu demee yaa si sonn jaru ko jaru ko te boo koy def tamit bu dee yàlla taxul tamit ah kon sa jëf jooju ah moytul mu nekk wa qaddimna ala ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura ah moytul jaru ko yàlla neena am na ci nit ñi nga xamante ne dañoo jiital seeni jëf joo xamante ni jëf nañ ko waaye bu ma ko vérifié gisuma ci dara la ñu def ngir yàlla ma daal di jël jëf jooju def ko neen def ko habaan mansuura def ko mu doon ngelaw poussière boo xamante ne amuñu dara luñ ci góobe ci yiw te moo ne bi nga doon jëf-jëf jooju xaw nga ci dee sonn nga ci jël nga sa jël nga fa sa temps dugal nga fa sa alal waaye ndigam yàlla taxul yàlla ne suur na loolu tamit dafa jara leerlu ah muskalaf looy def loo xamante ne ah te laxdari téere bu ndaw bi mu ngi lay wax ne du jaas du daggan du yell ci muskalaf koo xamante ne la islaam gàll na ko toppe na ko dara kooku mooy muskalaf koo xamante mat na lu mu doon ci côté góor wala mat na la mu doon ci côté jigéen téere bi nee na jaaduwut ci muskalaf bi ni mel ngay jëf-jëf ji nga xamante ne xamuloo la ci àtte yàlla ah su ko defee dañ leen bàyyi xel waaw ah, nañ leen bàyyi xel su ko defee loolu mooy li nga xamante ne tey incha allah Rewmi FM 97.5 lii lañ leen andil ñu bañ a jël suñuy jëf def ko mu doon ngistal diw sangam jënd na xar bu toll ni diw sàngam nee nañ leen làmmeñ dafa am cat catu làmmeñ yonent bi nee na dëgg la bët dafa am cat catu bët yonent bi nee na dëgg la kon nañ leen ko moytu dëgër fit ba nga jël sa xaalis jënd ko sa kuy bu normal takk ko ci penc bi ku bu xool ku bu wax ah moytul balaa ki mu nekk leneen de ah su ko defee loolu ku la ko yóbbee yaa ko yóbbee sa bopp su ko defee loolu yëpp euh, dafa jara moytu waaw ak boo ci mënte am dencal waaw dencal waaw boo dencee nga mucc loolu nga jënd mu mucc waaye boo ko takkee ci penc bi comme wolof la muy faral di lépp la rek ku dee si penc yaa tàggee sa bopp wala ku dee si marché bi yaa tàggee sa bopp kon loolu la lii mooy la nga xamante ne moom lañ leen àndil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diñ na ko moytandikuloo moo tax mu ne in axaafu ma axaafu aleykum shirkul azxar ar riya nee ragaluma leen leen dara tiitaluma leen leen dara li ma ragal ci yéen daal mooy bokkaale su ndaw ñu ne bokkaale su ndaw si mooy ngistal ngistal bu nga xamante ne ëllëg keroog bés penc yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala da di wax ne dem leen ci ñi nga xamante ne ñoom ngeen bëggoon ngir ñu gis sini jëf dem leen ngeen xool ba xam di ngeen am ci ñoom peyoor moo tax nee na yaqulullahu yowmal qiyaama yàlla da leen di wax bés pénc ida jaza naas bi amalihim bu yàlla di fay doomu aadama yi seeni jëf ba nga xamante ne moom lañ doon jëf fii ci àddina ñu doon sellal ngir yàlla rek kepp yàlla day fay ñooñu seeni jëf jëf ju baax mu doon peyor bi nga xamante ne day diisal seen balance su peesekaay bi waa ñu doon def ngir gistal yàlla nee na da leen di wax ne yonent bi nee na sala sallam yàlla day wax ñooñu izhabu dem leen ila alladina si gaa yi nga xamante ne na fi dunia ñooñu ngeen bëgg ñu gis seen jëf yi fanduru ngeen xool ba xam hal tajiduna indahum jaza ba xam di ngeen am si ñooñu la nga xamante ne mooy peyor mbokk yi lii mooy la leen Rewmi FM 97.5 andil tey ci waxtaanu fajar bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo may ji dégg ak topp tabaski baa ngi ñëw yan nañu fi fekk boy dem yan nañu fi bàyyi ki ngeen àndaloon waxtaan bi mooy seen mbokk Ibrahima Dramé ci côté technique bi watu xarala gi mooy suñu mbokk di jaawo jàll ñu ngi ñaan yàlla suñu borom an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana amin ya rabbal alamin wa kullu amin wa antum bi xayr allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahuma taqabal minna innaka anta samiun alim allahuma taqabal minna innaka anta samiun alim allahuma ya rabbi taqabal minna innaka anta samiun alim hada wa salli llahuma wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahi wa barakatuh ahi wa barakatuh ahi wa barakatuh